mouvement bi ñu tax a daje fii tey ñu am mbégte loolu nag jàkkaarloo ak suñu journaliste yi nga xam ne ñooy suñu titre di leen di ñaaral seen liggéey bi yàlla jëm kanam ginnaaw bu ñu ma jógee ci loolu maa ngi présenté ñi nga xam ne ñoo ma fi nekkal ci wàllu mouvement bi mouvement bi d'abord kan bi juddoo fii Thiénaba ki ko jiite Euh, bon nañ ci kër ku mel ni Babacar Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu coordinateur kaw secretaire général man mi nga xam ne maa jiite lépp li nga xam ne mooy wàllu politique ci biir mouvement bi mu nekk mouvement buy jóg a judd judd ci contexte bu doy waar euh, tombé ak mbas mi euh, dëkk bi jaxasoo ba ni mu waroon a amee ampleur amewul ampleur waaye loolu tënkuñu ci suma wàllu liggéey maanaam ci nga xam ne jafe-jafe askan wi ñu war dox wax ak ñoom gise ak ñoom loolu ñu koy def ci tout en respectant li nga xam ne mooy protocole sanitaire yi nga xam ne moom la ñu euh, moom la ñu suñu waa wooy wooy bu ministre de la santé yi nga xam ne moom la teg ci kaw suuf donc loolu ci ci loolu la ñu ci loolu la ñu dox ñu toog bu ay jëmi jamono ak dëkk bi ni mu xaw a jaxasoo ak contexte bi ni mu jaxasoo on n'a pas jugé nécessaire nag ñu boole fi ay mbooloo bu bëri mu ñëw pour daje point de bi nga xam ne moom la ñu war a daj tey moo tax ñu ne nañuy wow ñeent wala juróomi nit ci ñun ci nga xam ne ñoo wala teewal mbooloo mi ñu teewal mbooloo mi ci kaddu mouvement bi yëpp nga xam ne mouvement bi dafay dafa présent partout dans dans la commune ci aram yooyu la ñuy daje tey pour bëgg a waxtaan ak yéen ci quelques point yi nga xam ne mooy soxal maanaam doxalinu commune bi nga xam ne moom la suñu euh, maire Talla Diagne jiite euh, voilà boobu nag dinañ ci dinañ ci jukki ay quelques points yoo xam ne dañu jàpp commune bi war na daje mercredi bii di ñëw ñu amoon ay laaj yi nga xam ne war nañ koo jëmale ci askan wi jëmale ko ci nga xam ne ñoom la ñu yorale askan bi ci loolu ci la ñu bëgg a formuler ay quelques questions ci euh, ci commune bi conseil bi nga xam ne moo war a réunir le mercredi prochain ci loolu daal la ñu daje tey pour bëgg a waxtaan ak population bi jégee leen suñu ay ay ay ay ay laaj mu jëmale ko ci commune bi bu defee ñu indi ay tontu son yëpp mën cee jëriñu loolu moo ñu daje tey kon bu ci kanamee Abdou dina nga xam ne mooy euh, secrétaire général dina lire version wolof bi Lamine mi nga xam ne mooy secrétaire secrétaire général dina lire la version française kon foofu lay daal kon euh, kon asalaamaaleykum euh, mbokki Thiénaba ñoo ngi doyoo di nuyu na ba yépp comme ni ko sama naataango bi waxee ji. Mamour seen di doom ci Ngom seen dëkk fii ci Thiénaba Gare loolu rekk la eh, ñuy mouvement wàllu askan wi bu Thiénaba ñooy ñëw tey eh, di waxtaan ak waa Thiénaba di commencé nag ci nuyoo suñu sëriñ suñu wasila le xalif général de Thiénaba bàyyi sëriñ Abdourahim Seck di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan waaye di nuyu aussi suñu autorité yi di ko dale ca le sous-préfet euh, monsieur Ndiak Sarr di ci teg aussi suñu maire de la commune muy monsieur Talla Diagne euh, di nuyu nag bépp chef de village wala bépp chefu amo wala képp koo xamante ne si ne kilifa nga di nuyu imaam yi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne si ne ñooy président groupement yi ak ASC yi ñu ngi nuyu ñëpp euh, tey nag mouvement bi dafa ñëwoon tey ci waxtaan woo xam ne daf ko bëgg a amal ak askan wi waaye jooxal ko mairie bi ñi nga xamante ne si ne ñoo jiite askan wi ndax dafa am ay quelque points wala ay quelques doxalin yoo xam ne commune baa ngi koy doxal mu ñu jàpp ne doxalin boobu lënt na ci suñu xel lënt na ci suñu xel dans la mesure où ni nga xamante ne si ne ñun ñoon lañ jàpp ne noonu la ko yoon mayee wala noonu la ko yoon waxe doxewul noonu wala boog suñu dégg-dégg ci biir la ñuy wax ñoom àndul ak li nga xamante ne si ne mooy suñu suñuy dégg-dégg ba ca jiitu mooy fonds de dotation yi euh, fonds de yi nga xam ne mooy bi ñu dee voté le compte administratif gis nañ ci benn rubrique boo xam ne c'est des recettes compte administratif 2019 bi des recettes imprévues maanaam xaalis bu ñu xayma woon te xamuñu xaalis boo xam ne dañ koo xalaatoon waaye na xamuñu fu muy jógee ñu gis seen ñu def ci 9 million ñu déggit maire bi ne ay pexeem moo ko may 9 millions yi mu jaaxal nu lool ndax amul benn yoon ci benn commune fu mu mën a amee xaalis du dul ne xalaat nañ ko ba teg donc lu lu état xalaat ne fii rek nga man a jëlee xaalis ak fii ak fii ak fii ak fii ak fii noonu la noon la communes yi noonu la budget yi di doxee rubrique yooyu ñuy indi mooy fii nga mën a fii la sa xaalis mën a génne fii la sa xaalis mën a génne fii la sa xaalis kon pexe mu ñu munta wax meneen muy doo xamante ne si ne mu mu ñuy jëlee 9 millions la lu tolloog 9 millions pexe dinañu dinañu jaaxal parce que yaakaar nañu ne ginnaaw li nga xam ne fi la état wax ne yéen yéen communes yi li ma leen jox fii ngeen mën a amee xaalis fii ngeen mën a amee xaalis ginnaaw loolu la la ca nekk ñaar rek la mooy luñ la may wala loo xam ne dañ la ko sarax muy don ak lekk te su dee don la normalement conseil municipal bi war na ko voter nga soog koo mën a jël su fekkee si lekk la aussi la même chose kon su la conseil municipal bi dee laaj 9 million yi foo ko jëlee nga naan samay pexe la ñun dañuy tiit et puis daf ñuy jaaxal ñu bëggoon nag maire bi vraiment mu leeralal ñu 9 millions yooyu fan la jóge parce que sa mérite ñu créer ko rubrique su fekkee si ne parce que am na rubrique yoo xamante ne mënuñoo génn sax 1 million te pourtant ñi ngi figurer donc su ñu amee beneen rubrique boo xam ne mën nañoo indil 9 millions. war na conseil municipal bi war na ko xam ba génn rubrique boobu di ko def ci budget bi ñuy jëlee xaalis boobu fa mu war a nekk dinaa barastiku foofu sax tuuti ci wax ci vote compte administratif boobu parce que li ñu gën a yéem mooy ñun suñu conseil municipal yi bu ñu leen di jox budget ñu euh, kii bi préparation budget bi ñu leen jox euh, lettre yi dañu leen jox budget bi ne leen jox euh, convocation bi mais doo gis jamais ñu jox leen compte de gestion alors que ni ñu amee droit ci compte administratif bi noonu leen amee droit ci compte de gestion parce que compte bi mooy justifier compte administratif bi li ma la mën a mooy mi ngi mel ni ñun ñetti ñi man ak yow ak kee <clears throat> ñu séqoon tey euh, benn mbir boo xamante ne si ne yow laay dénk xaalis bi kee moo lay jox ordre bi ngay jëlee xaalis man maay contrôler ma bëgg a ñëw ba at mi jot ma bëgg laa contrôler nga ne yow naa la naa xool sa bos rek bu ma xool bosu kee loolu mu ne su àndul ak transparence du transparence teyit du leerali mbir teyit nag code bi da ko bi daf ne na kenn ku ci nekk bémul benn document boo xamante ne si ne am na au niveau de euh, de la mairie boo xamante ne si ne nit waru cee jot bu ñu war a nëbb kenn amul rawatina ay conseil ay conseil waru ñu am leen leen nëbb lu leen ump ci ci euh, ci euh, ci collectivité locale bi dëgg la bu ngeen nañ ko ñëw teg ci taabal soo bëggee nga ñëw xool déedéet loola taxul ni ñuy def compte administratif bi noonu la ñu war a def compte de gestion bi ba kenn ku ci nekk boo demee sa kër nga am le temps pour xool ci compte administratif bi lii de laa laajoon kii ne la lii laa la jox parce que mun loo vérifier tey jii su fekkee détournement d'objectif dafa am mais compte administratif du la woon détournement d'objectif il faut nga yor compte de gestion bi pour nga mën a xam ne détournement d'objectif am na te conseil yi dañ ci am plein droit il faut ñu ñuy réclamer seen droit yooyu ndax liñ seen taxawaay mën a mat ci au niveau du conseil munici municipal kon ñi ngi ñaan encore une fois conseil bi foofu ñu leeralal ñu vraiment 9 million yi fan la jóge waaye ñi ngi leen di ñaane tamit que à chaque fois que ñuy voté le compte administratif bu mu mënti doon na ànd ak compte de gestion ba ñu méngale ñaari ba xam lan moo ca nekk yoon ak lan moo ca nekkul yoon loolu aussi ñu ngi koy ñaan sur le conseil ñu ngi koy ñaan conseil municipal bi lu leen kenn mën a xañ yoon moo leen ko may soo demee ci code bi ci article 155 di nga gis ne ñoom am nañu droit boo xamante ne si ne ñoo ko tolloole ak maire amul kenn ku ci war moroomam li maire war a xam ñoom dañ ko war a xam parce que loolu mooy tax aussi nga mën a toog ci kanamu euh, ci nga mën a euh, euh, waxal askan wi mooy tax tamit nga mën a doxalal askan wi li nga xamante ne si ni mooy mooy mooy dëgg waaye li nga xamante si moo gën ci ci askan wi kon ñu ngi ñaan loolu euh, conseil municipal bi euh, ñu ñu leeralal ñu 9 million yooyu fan la jóge beneen bi ci des mooy carrière sable bu Kër moor yi maire lañ dëgg ci ay waxam <clears throat> mu ne carrière ba dafa jeexoon bi mu la woowee ki fa nekkoon di ko laaj ba xam carrière bi euh, euh, nan la versement yi demee da ko wax ne ko carrière bi dafa jeex ña fa des mooy waa Kër Mori ñoo am seen suuf ñoom la ñuy génne ñu bëggoon a xam parce que carrière bi dañ koo délimité woon délibéré ko kon su jeexee bañ ko war a koo tibbi feneen dafa ko dafa war a amaat beneen délibération mu mu mu ñu soog a mën a am euh, sañ-sañu di ko tibb ñu bëgg a laaj ba xam. population Kër Mouri boobu di exploité suuf yi suuf soosu ñuy wax ñoom fan la ko teg ndax dañ ko ko délibéré pour mu di ko def wala kan moo ko jox ndigalul ñuy exploité ñu continuer di exploité carrière boobu nga xam ne nee nañu jeex na. Euh, loolu mooy suñu ñaareelu question suñu ñetteelu question mooy kenn ku nekk ci ñun xam na ne mairie bi def na. ay lotissement yoo xamante ne si ne dagg nañ ko sax <laughs> lu yàgg yàgg yàgg waaye daal am na ay lotissement yoo xamante ne si ne am na li war waral lotissement yooyu am mooy maire bi def na woon am na lu tolloo quatre mille lu ëpp quatre mille nangam demande gis nañ mu def ñaari lotissement à Kayre benn bi à Kayre benn bi à Kër Ma à Kër Ma Lamine ñu bëggoon a xam lotissement yooyu ñaata parcelle la ñaata parcelle lañu ci la ci lañ ci war a jox askan wi ñaata parcelle la ci borom tool am ñaata parcelle la ci kiñ ne mooy promoteur bi am foofu it dañ ci bëri tuuti parce que gisoon nañ ci conseil municipal bi mu voté woon ne lotissement yi dinañ ci def lu toll ak million gis nañ ko ci budget yi passé gis nañ tamit promoteur bu ñëw taxaw est-ce que kan moo jox ndigal mairie bi à ce que promoteur yi jël ko lan moo tax fayuñu xaalis lan moo tax ñuy fay kii ndigal loolu fan la jógee parce que loolu it gisuñu ko fenn euh, maleureusement euh, ñun suñuy maire yi xamuñu euh, affichage amul benn yoon boo xam ne di nga ñëw ci maire bi fekk ñu affiché dara kon ñun mënuñoo xam lu lu ñu dégg ci nit ñi ak wala li gis ñu di ko doxal loolu rek lañ mën a xam la ñu ca jaaxalit mënuñu lu def lu laaj leen ko amee nañu nag habitude bu ñu leen laajee dara duñ ko tontu mais ñi ngi ñaan yàlla ñu leeralal askan wi lii ndax askan wi soxla naa xam xaalisam fan la jëm soxla naa xam ay àllam fan la jëm soxla naa xam 4000 nangam demande bu la ko ay ni defalee war ngaa xam ne soxla nañ fu ñu dëkk te nii ki dëkk feneen ku dëkk jaayaan wala ku dëkk feneen ni muy mën a def ba am ci suuf ci ci ci ci lotissement bi ki dëkk ca ba war na koo mën a def ba am ci biir lotis ba am ci lotissement bi ay parcelles yi mu soxla ñu bëgg daal ñu leeralal ñu ñaata parcelle moo fi nekk yoo xamante ne si ne askan wi lañ ko waroon a jox ak ñaata parcelle moo fi nekk yoo xamante ne si ne ah, dañ ko destiné promoteur wala dañ ko destine keneen ñu xam parcelles yooyu nu mu toll euh, beneen bi ci des mooy les modalités hmm? waaw euh, euh, mi ngi ñu ne sama nataango bi mu ko fàttali am na ñaari lotissement yu officiel lañ wax benn bi mi ngi Kër Malamine benn bi mi ngi Kayre bëgg na ñoo xam benn bu nekk ci yooyu naka lañ doxalee euh, euh, euh, joxe bi mu daal di distribution bi comi comité de distribution bi li mu arrêté parce que dafay am ñoo xamante ni ñooy taxaw ne nii lañ koy séddalee ñooña ñan la ak lu ñu wax ne noonu lañ koy séddale loola bëggoon nañu conseil municipal bi indil nu ci ay leeral nu mu gën a nu mu gën a leere loolu ci modalité yi le pourcentage de satisfaction des demandes bëggoon nañu xam tamit comme car gis nañ am na ñu ngi ñu commencé joxe bëggoon nañu xam ne euh, demande yi ñu am Thiénaba pourcentage bi ñaata la toll ci ñin jox ñi nga xam ne dañoo ñëw indi seen demande Thiénaba ñaata lañ ci jox pourcentage boobu aussi bëggoon nañu ñu wax ñu joxe nañ ci biir 4000 demandes yooyu maire bi doon wax ne am na fi plus de 4000 demandes joxe nañ ci lu tolloog téeméer ci 4000 yi wala joxe nañ ci lu tollook ñaar fukk ci ci ci ci 4000 yooyu demande par rapport ak li nga xamante ne si ne moom moom la ñu moom la ñu dagg voilà beneen bi ci des mooy frais de mutation yi ñuy fay ak euh, euh, euh, autorisation de construire yi gis nañ ne depuis que conseil municipal bi ñëw fii ba léegi nii képp kuy def mutation dangay ñëw ci maire bi ñëw ñu ne la andi sa xaalis nga joxe sa xaalis ñu desal la këyit nga dem kenn ci ñoom koy laaj ndax am nga quittance wala am nga ordre de recette daan la déedéet man damaa dem rek fay ñu jox ñu ñu ñu ñu jox ma ñu jox ma sama këyitu kar ma dem foofu it naa ci ñëw ci population bi tuuti yee leen nit war na fépp fu muy dugal ñaar dërëmam sax mu am reçu dugal naa fa ñaar dërëm waxuma laak soixante mille francs nga di ko fay plus euh, comment dirais-je euh, autorisation de construire trente mille muy ñaata quatre vingt dix mille nga ñëw jox ko nit wan ko ginnaaw sans reçu sans quittance ni rien de tout vraiment loolu aussi euh, askan war nañ cee bàyyi xel ñoom ñoo ñu koy def loolu nag ça n'a rien parce que ji nga xamante ne si ne ñoom lañ dënk commune bi jox leen pouvoir yooyu ñoom ñoo war su nit ñëwee jóge fële ñëw ab commune du laajub xaalis. bépp nit bu ñëw ci commune mu ñëw nga mën a la jox ma nangam nangam lii nangam lañ ko indi jox ma rek jàppal ne kooko nekkul ci lu jub ab commune da ngay ñëw mu jox la ordre de nga dem fayi su dee ne nag yow yaa ko yaa bu dee ne nag yow yaa bëgg mu fayal ne ko am fayal ma mais ab commune doo ci ñëw ñëw naan na joxeel cent mille ak joxeel nangam mille déedéet ab commune du encaisser xaalis day ñëw joxe ko ci timbre. wala mu jox la ordre de nga dem fay su may wax timbre yi euh, kii yee tax may wax état civil bi état civil yooyu nga xam da ngay taf timbre 200 francs yooyu ay timbre la bu fekkee si ne ca garage bala nañ la jox sa cutis nuñ kii bi euh, droit de stationnement mais ab mairie du jël du récupérer ab xaalis di téye jubul jubluwul te it code bi da koo tere ku ñëw nañ la defal ordre de nga dem fay malheureusement. gisuñu benn yoon koo xam ne ñëwoon nga ci mairie bi di wut si kayit muy autorisation de construire wala muy euh, euh, euh, nga doon def mutation même même même même même les frais de bornage là am na ñoo xamante ne si ne ñi ngeeg seen i kayit ñoo xamante ne si amuñu quittance su te koo ci wax mu ne la fay na ñuy ñaan conseil municipal bi xaalis boobu nga xam ne ñu ngi ko fiy dugal depuis 2014 ak suñu joy na yàlla tey ñu leeral ñu xaalis boobu fu mu dugg naka lañ ko fayee jee ak naka la dugg ak fan la dugg parce que it euh, euh, gis nañu que ne xaalis bu bari la beneen bi ci des mooy papier yi nga xamante ni si sax moom lañ fay wuti du papier yoo xamante ne si ne jaarale nañ ko yoon ñu bàyyi ci xel bu baax képp ku wàcc kuñ jox këyit te wàccoo woog yoon amoo dara. te pour nga wàccoog yoon ci kayitu kër il faut nga am quittance bu trésor la preuve képp koo xamante ni yaa ngi ci jógoon tey jii nii ne da ngay dem euh, wuti sa baay boo ñëwee lañ lay njëkk wax mooy ana sa ordre de recette ana sa quittance bu tré trésor da ngay mujj retourné waat ñëw fay waat ko bari na ñoo xam ne dañoo dañu doon dem di ko dañoo retourné waat ñëw fa dem fay trésor beneen xaalis xaalis ban fayeen fan la dugg kon nañu leeralal xaalis yooyu fan la dugg nañ ñu wax lan moo tax benn ci benn dë dëkk benn kii nit ñi mën fee am ñaari benn benn benn institut nit mën fee am ñaari acte yu rowul nga am kayitu kër goo xam ne maire rek ko signé muy mitation bi kee am kayitu kër goo xam ne maire rek sous-préfet ko signé te code bi wax ne bépp kayit boo xam ne day lal wàllu suuf te sous-préfet euh, contresigné signé wu ko këyit ga baaxul këyit bu mu mënti doon su fekkee si ne sous euh, dafay wax ci wàllu suuf maire ak sous préfet ñoom ñaar ñoo koy ñoo koy validé lu waral këyit yooyu du génn te sous préfet gisu ko loolu it bëgg nañu ñu leeralal nu ko beneen bi ci des mooy benn mbir tey muy autorisation de construire gis na ñetti forme autorisation de construire ñett bii ñu def ci autorisation de construire bii ñu def ci euh, euh, euh, mise en valeur bii ñu def ci autorisation provisoire ban moo ci correct ban lu tax ñetti yooyu am na ci benn boo xam ne moom ñun ñëpp suñu xel mën na ko dàq mooy mise en valeur mise en valeur c'est quoi c'est-à-dire su fekkee si ne acte bi yow parce que ñun amuñu lu droit d'usage usage lañu am acte administratif bi ñuy dox droit d'usage rek la ñuy jox suñ la ko joxee droit d'usage kay déjà yaa ngi ci yaa ngi ci sa yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci sa sa droit de nga def ci dara léegi nag li nga ci bëgg a def lañu lay la la ñuy saytu ba xam war nga ci am autorisation wala déet te boo duggee ci àll bi euh, malheureusement dañ dul dégg de décentralisation lan la décentralisation nu ñu mën a def ba askan wi dund ci jàmm suñu suñu environnement euh, dundin neex ñu nu ñu mën a def ba nit askan wi jëmee kanam nga dem ba ca àll ba nga fekk fa koo xamante ne seen néegu ñax rek pour mu samp ko problème la mu yor këram di kii nga ne ko kaay fa autorisation de construire mu ñëw jox la trente mille am quittance bu ko réglage bi sax mënu ko amu ko nga teg ko fan yow yooyu yëpp bëgg nañu conseil municipal bi leeralal ñu lan la exact lu waral façon yooyu lu waral ñetti actes yi waaye lu waral aussi nit ki di fay quittance di fay ba pare te du am quittance wala bu dee am quittance it quittance ba nan la demee bu fekkee si ne ñoom dafa am beneen façon bu ñuy fay wala beneen nangam bu ñuy fay nañ ñu ko nañ ñu ko leeral je pense que lii moo nekkoon li nga xamante ne si ne moom la ñu soxla ci conseil municipal bu Thiénaba mu leeralal ñu lii naka la ban doxalin la aw ba lii mën a ñu mën koo constater comme nii waaw euh, ñu ngi sant bu baax ci question boobu suñu position mooy comme position ñëpp rek bépp citoyen ba fi nekk loolu mooy sa position mooy di euh, vraiment ñun dañu dañu dañu jaaxle ci loolu li ñu gën a jaaxal sax mooy réponse maire mooy yëguma ko xaw ma ko woon te ñun ñëpp ñu xam ne mënu la dem fay kenn mënut te dugal xaalis ci biir euh, biir trésor xaalis bu jëm Thiénaba te du na maire bi moo la defar ordre de cent 750 millions yi muy wax effectivement c'est vrai il tournait autour de ça te am nañ ci ay firnde yu leer yu wér wér a bi mu doon jub mi ngi ciy tourné maire bi tous les trois mois trésor dina def benn situation financière ñëw jox la kon bu fekkee si ne sa lële ma nga ma ngay ma ngay dox wala doxul euh, loolu war nga ko xam liñ ci gën a tiital mooy yëguma ko woon parce que bu ñu demee ba dénk la xaalisu askan wi dénk la askan wi parce que ku ci yoroon sa oto muy daw lu muy versé di nga ko xam doo toog mukk at wala at ak lu topp parce que fait bientôt deux ans te ce qui est sûr et mooy depuis boobaa ak léegi euh, euh, nam doon doxee rek la doon dox donc nit dañ lay mën a toogee pendant toutes ces périodes là euh, nga dénkaane sa yëf loo xamante ne si ne moom rek nga am comme recette propre daanaka mu am ca jalgati yu tool noonu nga naan yëguma ko loolu mooy li ñu njëkk a tiital est-ce que ñun kon suñu suñu commune mi ngi ci ay loxo waxuma sax mi ngi ci ay loxo yu baax ak yooyu dama ne est-ce que ngi ci ay loxo parce que ku mu nekkoon say ku mu nekkoon say loxo doo ko seetaane noonu te it mu leer nu it ñun ñëpp nekk ay citoyen mu leer nu ñu bis bu nekk bu doon sax 1000 francs moo doon dugg passé woon na foofu beneen ba ca des nag gën ñëw nag war a naqari ku mu mënti doon mooy moom mu ne yëgu ko. kooku moom war naa mën a naqari ku mën parce que loolu amul je pèse da mooy moom munu la am munoo am wala bokk su dee ne am na ah kon ñun war nañoo xoolaat bu baax ki ñu dénk suñu su dee am na war nañoo xoolaat bu baax ki ñu denk suñu yëf parce que munoo ñetti weer yu nekk ñu jox la ne lii nga daan def munoo tamit yor mbir nga xam ne kii nangam lay versi écoutez très bien daf ne nekkoon na 500 mille la ne woon maa ko yóbbu ba 750 mille ba mi ngi ko versé kon xam na carrière bi li muy versé soo toogee 3 mois ñu indil la benn kii boo xam ne euh, euh, ñu indil la euh, situation financière war ngaa xam ndax 750 mille ya nga doon xaar par 3 mois additionné ni ñëwul ci wala dugul effectivement non xam nga donc lañ cay xaar ci ñoom ci conseil municipal bi mooy li nga xamante ni si ne lépp muy dëgg nañ ñu wax lay dëgg. te it nañ ko doxal ci dëgg euh, euh, je pense que ne ñun ñëpp ay ñun ñun ñëpp kii yor na ay oto yi daw keneen yor ay oto yi daw la la ñuy ak ña nga xamante ne si ne lu toll noonu la ñuy versé loolu lépp xam xam nañ ko te xam nañ ñun loo xamante ne si ne mooy yenu maanaam mooy yàlla ci biir carrière bi kon li ñuy xaar ci conseil municipal bi mooy euh, mu leeral lépp ci njub ci maandu te it ñu doxal lépp ci yoon loolu la ñuy xaar ci moom. waaw xam nga. waxuma ne sous-préfet def cee génn loxoom dama ne gis nañu mutation bu ñu mën a def mutation yi gis ñun nga xam ne ay actes lu génn ñu mën la ko woon amu ci benn boo xam ne sous-préfet def am na compte am na signature sous-préfet nee naa la gis nañ ñetti façon gis nañu ay façon acte am na acte yoo xamante ne si moo tax ma ne la nit ñu leeral ban moo ci baax am na acte yoo xamante ne si ne sous-préfet moo koy signé gis nañ acte yoo xam ne sous-préfet yi si visé nañ ko gis nañ yoo xamante ni sous-préfet yi visé wuñ ko moo tax ma ma ne la nit ñu xoolal ban moo ci baax ci ñaari acte yooyu te gis nañ ci code bi que ne bépp acte boo xam ne dafa yox ci wàllu suuf sous-préfet da ko war a da ko war a signé kon mën nañoo jàpp ne yenn acte yi nga xam ne sous-préfet signé wu ko yooyu acte ñu jàpp ne kon baaxul hmm? euh, bu dee ci wàllu Thiénaba la Thiénaba gisuñu kenn waxuñu présenté wuñu lotissement gisuñu it ay borne yu ñu ca dagg gisuñu it ñu dagg ko foofu sax dinaa fi glissé tuuti parce que il faut que nit ñu aussi ñu jéem a Euh, ñu jéem a xam li ñu moom lu mu li ñu moom li mu doon réew mi dépassé na foo xamante ne si nit day jóge ca àll ba ñëw exploité la jàll dem yoonam jàppassé nañ ko amul benn commune booy dem demal Ngoundiane gii rek soo fa demee bu ñu dee dagg suuf même comité d'attribution ba waa dëkk baa ko formé dañuy ñëw jaar chef de village bi def demande chef de village bi ak waa village bi toog xool ba xam kii mën nañoo dëkk ak moom ba pare ñu yót ko maire maire soo ko defal ko defal mu dem dañu war a dépasser foo xamante ni si dañ naan nguur nguur gi nguur gi jëlul yëfi kenn li fi nekk lu suñu yëf bopp ñoo koy waxtaane seet nu mu na arrangé nu mu baaxee si ñoom ñu doxee ko noonu nguur gi bañ na ko ba boo demee ci code des collectivités locales dafa permetre dëkk bu nekk ñu wut cadre de concertation de telle sorte que mu nekk seen diggante ak mairie ba ba xam ne lu fa mën a xew ñoom ñaar ñu waxtaane ko ba déggoo ca mu soog a mën a donc muy cene ba muy feneen muy feneen nañu am bu ñu nangooti ñuy dagg seen suuf yi ay ñu jóge ca àll ba ñëw di ko di ko jariñoo wala ku ñu muusi jënaxe ca na bay nañu bàyyi muusi ca na bay lekk ko donc ca ba li tax waxagu waxuñu ko parce que gisuñu lotissement ca na xam nga ñun euh, yàlla dafa dogal sax dañuy tudde suñu bopp mouvement wàllu askan wi xaaruñu ci askan wi dara lu dul li ñuy ñu ànd ak ñun ñu jàppaloo ñu jàppaloo défendre suñu bopp parce que ñun nit ñooy askan wi ñun ñi ñooy askan wi suñu yaay nekk ci biir ak suñuy ginnaaw ak suñuy mag ak suñu rak kon ñun ñii ñooy askan wi lépp nag loo xam ne laaj na ko bu ëllëgee daañ ko def lii première pas la rek mooy ñu wax ñu parce que li ñu lënt leer ñu rek bu ñu li ñu lënt leeree leneen lu ca war a topp rek dañ ko ci toppale parce que ñun euh, je pense que ne boo gisee it ñu def nii mu ëpp doole ci ñun ànd nañu ak ñoom ci jàppale leen ci lépp lu ñu mën a loo xamante ne si day jëmale commune bi kanam foo demee ci développement foo demee ci lépp loo xam ne luy jëmale Thiénaba Thiénaba Thiénaba kanam la danga ci fekk ñii noonu nag lañ fa seen taxawee tamit ci politique bi nga xamante ne si ne mooy jëmale Thiénaba kanam te mu doon politique boo xamante ne si ne du ñu yàqal ñun waa Thiénaba kon lii nga xamante ne si ne aussi jóge euh, euh, nañ ko paa dañ ko fas yéene di ko ñaan yàlla continuer ba lépp jaar ci yoon ba nga xamante ne si ne Thiénaba ñëpp dañ gis seen bopp ci ni nga xamante ne noonu la commune bi da doxee donc euh, je tiens à me présenter avant de commencer c'est monsieur Lamine Thiaw demeurant à Ndiané secrétaire général du mouvement Wallu Askan Wi de Thiénaba donc à l'entame de mes propos je tiens à adresser mes sincères salutations à M. le sous-préfet, M. Sarr de Tianaba. Adresser aussi nos sincères salutations à Serigne Abdourahim Sek de Tianaba, Khalif général de Tianaba, mais aussi adresser nos sincères salutations à toute la euh, population de Tianaba et environ. Donc, euh, l'objet de ce point de presse aujourd'hui, c'est une demande d'interpellation à l'endroit du maire et de son conseil municipal qui doit se tenir euh, le mercredi prochain. Donc, sur ce, nous avons six points qu'on a cités ici. Et sur ces six points, nous euh, tenons à les interpeller là-dessus. Parce que c'est le Code général euh, euh des collectivités locales, euh, l'article 157, 5, qui nous donne ce droit. Et sur ce, je tiens à vous donc, ce arrêté ici. Tchéneba, le 2021 à monsieur le maire de la commune de Thiénaba objet demande d'information monsieur nous venons par cette présente demande vous solliciter auprès de votre auprès du conseil municipal dont vous avez l'honneur de diriger l'éclaircissement de quelques points ci-dessus. Premier point, l'origine des fonds versés sur les recettes imprévues inscrits sur le compte administratif de 2019. Deuxième point, par rapport à la gestion de la carrière de sable de Kermouridion, dont on nous avait communiqué l'épuisement de la surface délibérée par le conseil municipal, sous quelle bannière cette carrière continue à être exploitée Troisième question, le nombre de parcelles loties sur chaque site, c'est-à-dire le site de Kairé Al et le site de Kermalamine. Nous demandons à savoir le nombre de parcelles qui ont été loties sur ces sites. Le quota qui revient au promoteurs et le quota destiné au propriétaires des terres et le quota qui est destiné à la commune de Tchanaba. Donc, euh, sur le quatrième point, donc, nous demandons les modalités d'attribution des parcelles à usage d'habitation arrêté par la commission de distribution. Cinquième point, le pourcentage de satisfaction des demandes des parcelles à usage d'habitation. Et sixième point, pourquoi les personnes demandeurs de mutation ou d'autorisation de construction ne bénéficient pas de quittance du trésor qui leur revient de droit. Donc, dans l'attente d'une suite favorable de notre requête, vais agréer l'expression de nos sentiments distingués. Le coordonnateur, M. Babacar Ndiaye. Très bien. C'est, voici donc, euh, la quintessence de cette demande. Et nous tenons aussi à à y avoir des éclaircissements, des réponses exactes, comme je vous l'avais dit tout à Donc, euh, c'est l'artiste. Nous, nous nous, nous sur la, 157 du, collectif, du Code des collectivités locales tout habitant ou contribuable a le droit à ses frais de demander communication sans déplacement, donc de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux. Donc c'est sûr, sur la base de cet article, que nous nous appuyons aussi pour interpeller le maire et le conseil municipal pour avoir des réponses exactes sur les six questions qu'on vient de citer tout à l'heure. bien, sur cette question, la position du groupe est claire. Nous, nous demandons à ce que toute la vérité puisse jaillir sur, sur cette question. Donc, c'est le maire qui a été élu. Nous, nous sommes des contribuables. Nous, en tant que contribuables, nous l'interpellons pour que la lumière puisse jaillir sur cette question. C'est notre point de vue. Nous réclamons la vérité et rien que la vérité là-dessus. Pour moi, j'espère bien que puisque euh, l'état d'urgence sanitaire a été levé depuis euh, hier vendredi à minuit, j'espère bien que bon, ce qui était normal, c'est de demander d'ouvrir le conseil municipal à toute la population pour qu'ils puissent venir assister. Donc, donc euh, c'est mon point de vue. Mais peut-être les motivations, euh, ce qui a motivé le maire à tenir ce conseil municipal à huis clos. Donc, euh, c'est à lui de... <laughs> cette question lui euh, revient de droit pour savoir les raisons exactes. Mais de toutes les façons, nous, en tant que mouvement Wallou Askanui, nous l'avons interpellé et nous avons droit à des réponses. Et nous lui demandons des réponses sur les six questions qui ont été citées. pour que au moins la population aussi puisse savoir ce qu'il en est exactement. Bien, donc on s'est focalisé sur ces deux euh, euh, villages parce que donc nous avons su à travers des personnes que il y a deux lotissements qui ont été tenus dans ces deux villages, à Kairéal et l'autre c'est à Kermalamine, dont pratiquement juste j'habite. Parce que quand je dis j'habite, Donc Kermalamine, Keribra et Ndiané sont des villages qui, euh, qui, se, qui, se, bien, qui se situent dans la même zone. Et ce lotissement d'Indiané, c'est ce lotissement qui me tient le plus à cœur. Pourquoi il me tient le plus à cœur C'est un lotissement qui s'est fait sur une superficie de presque 79 hectares et poussières. Et on a dit que sur ce lotissement, il y de 1200 et quelques parcelles qui ont été loties. Et la population de ces dix villages, vraiment, n'ont pas la possibilité d'être euh, comment dirais-je d'être euh, très bien d'être bénéficiaire d'une parcelle mais sur quelle base hein? et dans quel pays sommes-nous d'autant plus que nous tous nous sommes des citoyens de la commune donc il ne doit pas avoir un traitement de faveur entre les citoyens de Thiénaba donc c'est sur cette question que moi en tant qu'habitant de Ndiané que j'interpelle le maire pour qu'il nous dise exactement le nombre de parcelles qui ont été loties sur cette zone, le quota qui revient aux deux promoteurs, le quota qui revient aux propriétaires terriens et le quota qui revient à la commune de Tchanaba. Et c'est sur cette quota qui revient à la commune de Tchanaba que les habitants de la commune doivent bénéficier, à base, d'un, par exemple, d'un tri. Mais nous, à Ndiané, nous avons une demande de 300 et quelques parcelles qui dorment auprès du chef de village. Le chef de village est venu ici interpeller le maire à plusieurs reprises, mais il a dit de garder ses demandes jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il en aura besoin. Mais sur quelle base Et ici, au niveau de la commune, y a des demandes qui dorment là-bas. Pourquoi les demandes de Ndiané doivent rester à Ndiané et que les autres demandes viennent ici Et demain, si on fait les att ces attributions-là, la population de Ndiané ne sera pas bénéficiaire. Mais dans quel pays, dans commune sommes hmm?